fekk bokk ma ci xeex bi ba lépp jaaraat yoon dootuma xool sama bopp man kese moo tax mu jaraloon ma ma bàyyi lépp sacrifice bu nekk mhm. ma def ko mhm. tey am naa ci satisfaction mais mais mais tekki sa ngemb jano àdduna ak takk sa ngemb jëm arène nationale bu gën a yomb jëm arène nationale moo gën a yomb parce que euh, yow xam nga ne lii ñu nekkoon mhm. ku ci nekkul lekk moo moo ci moo ci mënul xam lan la mais képp ku ci nekk mën na laa wax lan lañ ci dund parce yow jàpp nañ ci booy yu nga xamante ni man ak ñoom ñoo doon teg mais jàpp bi mooy gis nañ ni kii nii maanaam booy dafay ànd ak patriote wala day wàcc sur le terrain wala soupçonné nañ la si dara rek dañ lay jàpp yóbbu parce que is bi ñu koy jàpp is ñu ngi dajeeg moom mi ngi jugee xaw ma fan côté gàllem waa bi muy jéggi tali bi rek ko booy café laa bëgg nañ demaale mu ne ko grand looy def nii bàyyi mu ne ko dem is dem na tëdd huit mois is génne waat nañ ko mais attends hélas Tafa ban gàllaaj la amoon ba jàpp yooyu yëpp mu ciy rëcc <laughs> non mais gis nga gis nga gis nga yàlla. yàlla ku mu tudd ci yow rek moo ci. parce que man man man taxaw naa mission boo xamante ni am na ñoo xam ne waxuñu sax li ma doon wax. am na ñoo xam te dugg nañ kaso. mais man dama doon xeexee techniquement parce que man booy man guddi foo ma fekk maa ngi déglu président Ousmane Sonko. Ousmane man jàpp naa ne am na rôle boo xam te ne dama ko amal patriote yi du ma saraxe sama bopp ñu may jàpp tëj saa bu tentative waree am damay génn Ndakaaru billaahi wallaahi région yu bëri Pastef bii nii ak ak nu ak projet bi moo tax ma xam yenn région yi Sénégal. ci làqatu wala. waaw ci daw ba affaire sedd ma ñëwaat ci effacé ba affaire sedd ma ñëwaat. ci effacé maanaam di fexe di éloigner di écarter danger bi. ok kon yow da nga doon exilé wu ci bëtu nit ñi quoi da nga doon sànni ba gars yi gis ni xeer bi dal na nga daw làq. ma effacé waat parce man dañ ma soxla. yaa am na nit yu bëri boo xam ne mbër. ak demee xel mbër yow dañ la soxla parce que am na ku si nekk rôle bi nga am rôle bi Ousmane Sonko yor du moom la Tafa Mbër yor Tafa Mbër rôle bi mu yor du moom la Guy Marius Sagna yor Guy Marius Sagna rôle bi mu yor nekkul moom la exemple benn ku ma ko mën a tuddee Mollah Morgun yor wala keneen ak keneen ku si nekk am na looy looy parce que état bi dem na ba jaral leen ñuy fay ay ay ay ay ay ay influenceur di leen jox xaalis pour lan ñuy fen pour ñuy yàq ay der pour ñuy yàq deru Ousmane Sonko waaw li sëñ li euh, sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waxoon. Mhm. mu ne sëñ Babacar a ko woon xaw ma kan ma ko wax mu ne li nga nekk. Mhm. lépp lu mu jaral keneen pour mu yàqu. Mhm. na la jaral lu ko raw pour mu baax. foofu laa taxawoon. ok ok ginnaaw bi loolu lépp sottee ba tey ñu ne Moustapha Mbër dellusiwaat na donte ñëw na wax nga wax influenceur tey boo gisee ñu ne influenceur ñenn ñi doon wax na xale yi amuñu carte ñu gis voté bii ni xale yi génneeg masse wane ni. xale yi màgg nañu noo ko dundee. foofu ba ma déggee loolu ay réel lañ may def parce que ñun ñu dëkk si baal bi dëkk si Sénégal bi ci suuf di xam booy yi booy yor seen i carte man bi may voté euh, ci sama bureau benn booy boo xam te ni musuma gëm ni sax ay affaire vote mi ngi si boppam benn booy jaay perek yoo xam mooy ñi nga xam bu ñu leen gisee du leen respecté jàpp ne ñii ay booy wayaa wayaa yooyu lañ. booy jaay perek boo naan ma mbër bi ma bi ma génnee sama enveloppe dafa desee dugg bu baax moom moo ne ma mbër enveloppe bi dugalaat ko bu baax baraaye ko quoi. waaw maanaam bi ñuy baraaye si biir. <laughs> maanaam dama benn côté bi duggul. mu ne ma mbër baraaye ko bu baax. pour wan la motivation ak détermination bi booy am ma ne leen ñii dañoo xamul moo tax bu ñëwee ñi leen topp ñëpp amuñu carte d'identité maanaam moo tax sama grand bi bi mu ne sées bi du ngeen ci toog ma ne ko tey laay xam ba xam vote moo fiy teg nit wala doole ci fan nga ko tegoon parce que booy dañoo génn voté en masse taux de participation bi kawee te su li ma la waxoon sànq sàcc cent francs yomb na mais sàcc junni yombul wala un comme message bi ya ko waxoon yow laa koy wax nga wax ko sénégalais yi waxaale ko président Bassirou Diomaye nga ne parcelle intervient teg ko ci day. mën na ko day tali unité onze ak unité treize day taa <laughs> tali unité quinze ak unité dix neuf day taa tali une tali hôpital Maabdou day taa. waaw eh, tali vingt quatre vingt cinq day taa. waaw monument unité vingt quatre day taa. na ñu jàppale def Sénégal. comme Émirats na def Sénégal comme États-Unis mën na nekk on peut le faire. ressource yaa ngi fi. Uh-huh. nañu récupérer suñu maaro bi delloowaat ko lébu yi. nappkat yi nan leen dellowaat suñu géej gi ñoo mareyeur yi suuf si nga xamante ne baykat yi nangu nañ ko si ñoom jaay ko tubaab bi nañ ko nanguwaat dellowaat ko baykat yi mhm. yaa ngi dégg élèves yi nañ leen jàppale étudiants yi ay ordinateurs yu jàngee sax amuñu ko étudians yi ñoo war a remplacer beneen Bassirou Diomaye fay mhm. ñoo war a remplacer beneen Ousmane Sonko mhm. ñoo war a remplacer beneen euh, Guy Marius Sagna nañ leen jox lu ñu moom ku ci nekk facteur mu ne nañ leen jox lu ñu moom tali defar ko ba Sénégal lépp nekk tali ñu fàtte suuf yaay deg dégg mi jaar yon faju bi ñu ñew di indi urgence hôpital ñu naan la demal daga ticket c'est pas normal nañ jappalé faj mi mhm. li daan am parce que da nga daan gis ministre de la santé domam du fajo Sénégal da nga daan gis ministre de l'éducation domom du jangé Sénégal na ministre de l'éducation domam di fi jangé nak bu jangé mi baxé mu jangé fi ministre de la santé na domam di fajo fi, mhm. nak bu faju mi baxé domam fajo fi yaay ngi dégg mhm. li ñuy xex loolu la te gëm nañ ñom ñoko mën moo tax ñu appuyer len toog seen i ba paré dooleel len lu ñu si fekk ñu jël té ndam moo ñu si fekk. ñu bal ñu ci kàddu bi quoi buñ mosaan a wax mbeur dof la tay ngay génné message yi en tant que leader buy tak ngem. waaw parce que tay moy li ma la wax rek ku ci nekk njàmbaaram ak xelam ak xam-xamam bala muy am faw am circonstance bu am mu génn parce que li tubaab naan chaque chose à son temps tey Sénégal bi mu soxlaa dinañ ne ah naka te diw. Mhm. parce que gor ak jàmbaar ak xam-xam ak xel dañ ko soxla ci yenn moment yi parce que Sénégal mënta soxla nga naan ngay teg yëfu dof mhm. yëfu dof weesuwul askan wi la def li nga doon soxla ñu leen di rey di leen souffrir mhm. nga naan ñii sama yoon nekku si ñoom parce que ñoom gëmuñu dara lu ñuy gëmee dara te amuñu kenn ku leen taxaw balaa ngaa gëm dara gi sentir ni saa bu méttee nga gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom kàddu yi ñooy borom doole yi ñi ngi sa wet parce que Sénégal ñëpp yemuñu doole mhm. loolu laa gëm moo tax ñun ay nit njaay lañ uh-huh. ay boromi xel lañ uh-huh. néew doole sax moo ñu dugal si làmb mais ñun man bi may jàng uh-huh. barki Seydina Mohamed ñi ma bokkaloon classe ñi ma bàyyi ma fenn du ma génn cinq premier du ma génn dix premier bi may def CI ba bi may def CM2 su ma defee euh, composition monsieur Dieye moo ma jàngal CM2 saa ma defee composition da ngay dégg élèves di daw tafaa mooy jël p wallahi al azim mais après dem naa ba année scolaire su su su su su waree tijji sama papa daf may xaarloo pour ñu jëndal sama rakk yi fourniture wala ñu inscrire leen man dernier moment ma ne lii mënatul a ne man damay uti ñañ jàppale xale yi waaw na booy jàng man man bi ma waree def troisième année bi ma waree def BFM laa bàyyi jàng kon laaloo bac quoi aw ma sax BFM parce que année boobu noonu jànguma ko ci laa ne voilà bàyyi ma dem uti beneen yoon. parce que tamit sama tutànk yi bëri nañ. ak man munu ma nekk man charge laa quoi man dama jàppee sama bopp ma maa charge mais Sénégal bu jaaroon fi mu war a jaar. Mhm. am am na ñoo xam yaa ngi leen gis yenn duñ sa nekk bàyyi Sénégal étudiants yi léegi ay la ñuy def. waaw bari yi léegi ay cag-cag lañ. waaw bari na. bàyyi dafa métti. Mhm. Bassirou Diomaye Faye na charge mais gëm naa ni charge bi yàlla da koy woyofal. ok bàyyi bi bi tendance yi commencé wàcc Sénégal da doon wis. waaw waaw non dama ne yow bi nga déggee tendance. yow en tant que patriote. Tafa fi nga toog nan nga ko doon dundee. bàyyi mënatuma toog mënatuma taxaw. ndax lan parce que dafa métti woon te bàyyi man dama gëmoon ni projet bi day dugg palais. nga gis ni jéng bi daal mu ngi dagg. non li may wax sénégalais yi Sénégal génn na kaso. ah fu nekkoon le Sénégal est libre. léegi nag dañuy ibbi suñu bët xippi xool xool fi ñuy jaar dem fa. xam nga kaso bu ñu la ci tëjee ba tijji la. Ah. da ngay génnaat nga xoolaat. la moo tax nga bari moo tax nga ba